ci àdduna ma ne ku ma woon bis dina ñëw ma sëy si kër ma weddi ko ah, Kumba yaa ngi say sëy bi de. ah gis nga na mu naa la ma nii. yaa ngi say sëy bi de. ah gis nga ah, lu may def. Oh, ah nii la góorgóorlu rek. waaw dina baax. incha allah kay man maa la jiitu ci sëy. dëgg la loo tax ma ne xam nga yow yedd la rek. dëgg la dëgg la yow da baax yàlla ñu boole. waa te en plus yow da nga jógee ci sëy. dëgg la dëgg la li nga mooy loolu dëgg la. magam mi mu bokkal ndey ak baay tey ji moo la jël. waaw da ngay góorgóorlu rek. incha allah incha allah. am la see ndax jaar nga ci. incha la moom. waa egsi toog. waaw bàyyi ma dem. waaw doo egsi ba si kanam. naaj bi tàng na de. bàyyi ma dem na dama fee jaaroon rek. ay yow kontaan naa trop jërëjëf eh, eh, eh, foo jëm naaj tàng bi. daam sama ko yónni ko fi maa ngi dem ñëwaat. dégg naa keroog fii nga ñëw di attaqué sa pàppa sama bon papa. sama njijaay xamal ni fii këram la waxu borom kër moom waaw la sant respecté ko nga am cër si ñëpp. waaw man Pao xaw ma ko kooku xaw ma ko dund dundu ma ko sax. kooku mënu ma ko parce que barki si këram mu jénni ma comme xaj. kooku mënul nekk sama papa waaw loolu yëpp bàyyi mu dem léegi. léegi muñ parce que xale mënul nekk sama papa. Ousmane réew nga de yow fexee ba du doon sa papa yow. asalaamaaleykum waaw kër gi xanaa kenn nekk asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ah Kumba da nga maa ngi fi. yaa ngi ci sëy bi. dina baax. waaw Kumba ana loo may reere. damaa xam yow bu ñàkk jom nga jàkkaaroo naa ba ba ngay dee dootoo teg sa tànk fii yow ñàkk ko jom de. Kumba li nga wax de man kilifa laa de waaw ana sa waa ji sa waajal. gis nga keroog li nga def bañ soxla ma xam nga yow wéroo keroog jël ko yóbbu ko si ay jigéen tey moo ko gisee jigéen lii laa lay doo bëgg. déet déet déet kumba loolu weesu na lu weesu weesu na. waaw baax na yow xam nga ni lii lii yow sa bopp bi jëtt lay def. xam nga ni loolu dootul amati loolu weesu na. ana sa moom. ngi yow. waaw maa ngi nii Ah, koor gi jàpp na la de. waaw koor gi dana ma jàpp ni dana ma jàpp ni. Eh, ragal koor ah ah. Eh, ah, ah ragal koor ah toogal ni waay toogal ni nekk ci kër gi di sol moo ko lu ne nga def. ah ko koor gi yow koor gi nii kay foog ñu mën def nii. ah yow kay. ah loolu loolu rek. ah ah waaye loolu bi. ba nga def nag. ah maa ngi fi. ah sëñ bi nag tey tey moom fi nga fa la baax na de. ah damaa doxee naaj. ah ça va yaa ngi ci dara. ah waaye rek ah. <laughs> waaye nag kàccoor nga nag. Eh, dégg nga waaye kàccoor nga. kàccoor nga yow bii. <laughs> yaa ngi sëy sëy bi ah, kenn mënu laa gis grand place ba. Hmm. ak jaaxa ja. ah sëñ Daaro nag nag temps yii nag ko say tolof topp rek. Ah, waaw waaw ah, ndax booy booy nekk fii si koñ gi fii. di tur jàmbaay. Eh. ñoo fi ñëw attaqué ma nangu sama la ma yore woon dóor mu dóori métti. waaw yow bërki démb sama koor bërki démb rek bërki démb rek maa ngi bëgg maa lay bëgg wax sa kër gi daa wéet ah si kër gi sànq maa ngi naan salaamaaleykum ba sonn ah gis nga sa soxna si wéet na ah eh eh eh eh la wutal wutal wutal ab kuti de ah ah kuti kuti boobu dana baax wutal kuti mu gaa sécurité la wutal kuti ah. ah yaa ngi toog ñu ah. ini maa ngi dem kamu te ñëw ah. xamal ma <laughs> allah ah ah. Eh. yu baax na de déggal bàyyi bàyyi tooñ waaye. ah waaw waaw waaw kon loolu la. waaw ah, kon yes. waaw ah, waaw lu gën a yéen a. waaleykum salaam waaleykum salaam. ah ah yii alaaj man yooyu dugguma ci. yooyu moom dugguma ci man. man nag damay gént wala lan. géntoo ñoo xam ngeen gërëm ñëw ngeen fi laajte Mbaal. ñoo fi ñëwaat tam laajte Ousmane. tey ngeen ñëw laajte Ousmane. man xam naa nag soxla leen Ousmane soxla ah. leen Mbaal la ñun ngeen soxla. waaye nag def leen nànk rek. man de moom taxawal fii bañ. Eh, bañ seetloo ndox xamal nañ toog. ndax xam naa ne man fii laay toog dama kenn. ma bu dawul woon ba ma fekk. damay ci sa ya, di nga yaay. ba bi dem.